du ma ko yëgee tamit foog naa ne ñii ñëw di ma laaj ticket voucher moo dee gën a bari nekkee loolu coow la mun nañ koo tuddee coow waaye laata maa xuus si programme bi foog naa ne kenn ku nekk doo toogee place ba mun la ñu a wax yow buy fàtte ña la maa ngi jël ndigal si suma ward development committee euh, di. waxaale ñi nga xam ne tamit dañ ma féete mag ñi nga xam ne suma mag lañ eh, tey foog naa ne du nekkee dem nañ ba di ekkati kàddu ñoom war nañ leen see cëral eh, maa ngi gërëm mboolem kilifa bu nekk Newtown Westward eh, di gërëm Banjul as a whole mboolem ki nga xam ne tamit yaa ngi fi nekk cawi sukur bi maalo bi ak diwlin bi foog naa ne si jota dégg wala li ma si xam mooy ñii ñëw di ma laaj voucher yi nga xam ne moom la nekk moom la council bi di joxe eh, man nag li ma leen dee wax mooy voucher joxewu ma ko because xaw ma voucher nu mu kool nañ ñu won ñu ne distribution bi mu ngee ñëw pour take place waaye um, wax leen ñu wax rek ooyu ñu pour ñu bokka ci exercise bi kon foog naa ne du nekkee ca mu ngi ñëw gars yi ñëw nañ di laajte am naa right pour ne leen nañ delluwaat Banjul City Council ñu dem ñu leerlu foofu noonu ndax voucher yi ñu ngi fa ndax nekkut fa te ñu bari duñ demee dañ dee mun a gis ne loolu am nañ ko foofu noonu wala wax nañ leen ne xëy na gisuñ seen tur foofu noonu waaye dinañ meeg soo ne dinañ am waaw te meeg soo boobu noonu dinañ am man tamit si laa dee dalalee suma waay gox ne leen Ah, nañ def ndànk rek mun naa am kayit yi ñoo jaxaso waaye du nekkee kayit yi yëpp jéem nañ ba gis ne maalo be sukkur be yëpp jeex na ñi nga xam ne tamit ba léegi dañ des mun nañoo ñëw ñu jéem a seet nu ñoo leerloo pour seet naka la ñoo ñu di amee waaw foog naa ne kenn ku nekk doo toogee place mooy li ma njëkk a wax rek lala fa teg saama ko bu baax man suma ay nit ñoo ma fa teg te foog naa ne tey du nekkee ñu ngee joxe maalo e, wuñ ma ñëwuñ ma ne kaay nga joxe maalo aw ma raay pour dem pour joxe maalo waaye tamit nit yi duñ amee seen voucher yi ñëw ñu gis ne dëgga dëgga dëgga dëgga dëgga paasise moo ma war a atteste pour ma mun a am maalo bii nii man ma aaye kooku noonu ne du ma ko saynal pour moom mu mun a am loolu noonu kon dafa mel ni dabul mistake la def te kenn ku nekk war ngaa bàyyi sa xel fa teg danga ko war a xam bu baax te am nga voucher sa tur ni ko gars yi spellé te mu óor ma ne ñii xam naa ne Ablaye lañ doon binda waaye Ablaye bi ñu binda Abdallah yow nga yóbbu sa kayit bi ñu gis ne Ablaye a fa nekk léegi duñ demee man maa mun a leeral loolu ne ab Abdallah bii nii mooy Ablaye ñaareel bi mooy Ablaye mun naa toog amut benn document. te mu leer ma ne kii doomi kii doomi gox gi la xam naa ne si fii la benn kayitam yaa réer war a gisul kayitam yi mu mis ko man dama war a dama ko war a attesal because of du ma ko xañee lii suma bopp laa ko xañ because man maa waroon a dimbale kii pour ñoom ñu am lii waaye kenn mënu ma koo joxe nguur gi joxe nañ ko te dañ war a saayin pour ñoom ñu am loolu dama leen a dimbale waaw dimbale naa leen pour ñu am maalo euh, du ma ne involvement dafa dafa laaj pour ñu déglu ko mu nekk ñaari boor involve buñ ma pour ne naa ñëw bokka si exercise bi dañ ma yëgal ne ma lii mu ngi ñëw xew fii te foog naa ne ku dee waxal sa diggante ak yàlla eh, du nekkee dang ma bëggoon a involve totally danga ma binda benn wala ñaareel bi mooy nga ooma ne ma kaay la waxtaan ay vaw te jéena na nañ seet naka lañ ko war a mun a defee wala yow lii dina dugal sa gox McDonald Hope Pine Street xëy na at mantel yooyu yëpp sa gox lañ ndax yow ñii doo seetee tur yi ndax xam nga leen nga dimbale ñu si distribution bi waaye loolu xappunut waxuñu si dara ñun tamit terewut eh, ñu bàyyi la ñu def seen liggéey because nañ fàttaliku ne council ñaari am la benn am bi mooy political side bi beneen am bi administrative bi la administrative bi nag du nekkee dañ def seen liggéey boolewuñu si ñun ñun amuñ benn right pour bileem leen ñoom waaye am nañ right pour bileem ki nga xam ne mooy suñ mayoress cos moom ak mboolem lu mu munti def du nekkee lu ndaw la sax moo ñëw council with this decision daf ñu war a oo ñu laayante biir ñu xam yan féet la ñoo jël because man dama dee wax benn kàddu ne moom du nekkee féel na du féelee moom council si yëpp féel nañ amul kenn ku win because of collectively dañ war a liggéey ñun intérêt Banjul moo ñu fa teg Ablaye du nekkee tey dama gis ne rek dañ ne du fa e-, exemple dañoo bileem mayoress euh, ñun tamit fail nañ suñ responsibilities as councillors because tey ak lu munti xew yëpp foog naa ne pour ça du réere si nekk nañ ko ut si biir nekk doo euh, toogee di ŋaaña council du nekkee dañ am buum wala morto bu ñoo dóor war nañ la koo dóor because man tey li ma wax kansul yéen a ma fa teg pour ma liggéeyal leen so du nekkee dem naa ba fiil ne li ma leen a liggéeyal am jis naa ne teguma ko ci kaw yoon war naa delluwaat si yéen lii mooy di essence of having Ward Development Committee Ward Development Committee li maa jëlee si council bi dama ko ñëw war a jox gaay yi ñoom lu ñu am assez constant si ground bi dañ ma ko war a jox pour ma yóbbu ko council waaye du nekkee ñaan ñi amul nekkul di dem di ñëw kon du fiil amee foog naa ne man suma boppa bokk naa si ñi leen a fiil kon foog naa ne um, ñun as councilors at mayor nañ putaat suñ app si together moo tax mooy tax ñu mun a dimbale waa Banjul uh, doo réeree mbir wax naa la ne Banjul ñun li bari mu ngi ñu waroon waaye tey nguur gi jël na lu bari wala defal nañu lu bari kon kontante si ñun ñuñ dénka position si te xam ne dénkaane rek la dénkaane mu neex mu naxari dafa am fu moo em kenn ku nekk fàttalekul fàttalekul bi mu fa nekkutee la nekkoon ak ba nga ñëwee ne dafa am loo faa saaf da ngaa dem keneen ñëw waaye fexeel ak nu munti demee bàyyi legacy pour ne kii ñëw dina wax ne ah man de fii laa fii la fii la waa ji emoon fii laay tàmbalee dem tey for exemple réew mi wala Banjul ni ñu ko gisee tali yëpp daanaka ñu ngi koo liggéey ëllëgee lanaay nekk responsibility council because three jurisdiction lañ amee yaa ngi am lampi mbedda yi am pax bi payi mbeeda ak xëj na tali bi léegi du nekkee tali bi Banjul City Council waxama government jël nañ ko ñu éradiquer loolu noonu mu desee la ñaar ba léegi taxut ne loolu sa juridiction foofu la em de waaye loolu mooy di main want yi nga xam ne yooyu war nañ ko toog seetaat ko ne dafa war it's a necessity pour ñu jéem a seet ni ñoo dimbalee askan bi waaye siwéej bi si la bokka waaye doo ñëwee ñun suñu boor dañ laa wane si wéj bokku si ñun nawet la booka waaye ma toog sa ngaay flotte sa boori bunti kër nga ñëw report si kansilo bi ma ne la déedéet lii boo bokku si man kon xaw ma suma responsibilities doo amee dëj man maa war a ñëw doo amee ngénte maa war a ñëw lu ma si mun ma def ko du ma munut ma na na naa nag nag ma gis rek xam ne kii yëg na ma yëg moo gën a am solo waaw du ma la yëgee ñi nga xam ne kii dëgg-dëgg ah, du ma doon bu ma doon dee tamit yéeg na ma xëj na ñëw na solvage ma time bi nga xam ne moom laa am problème nit ki gaañu mënuloo ko lifin dama waroon a attend dëj right now waaye interview bi moo tax mënuma ma dëj ami koole dafa gaañu suñ former councilor suñ last badge mu ngi fa woon um, ñu ne ma two o'clock la ñoo suul ma xam ne fix naa yow appointment depuis démb ba two o'clock du ma ko mën a féel waaye dinaa dem jàlle ji waaw um, lii daal mooy woon si gàttal ñun Banjul City e mayor bi ak councilor si nañ put seen apps together pour ñu mun a dimbale waa Banjul Banjul duñ ñu gisee differently ëllëgee duñ bëree tamit differently lañ ñoo gisee mënuñoo bëre ba jéem si soo bi eh, doo ñëwee councilor si di bileem mayor bi mayor bi di bileem councilor si du dem fenn nañ fexe ñu nekk benn. ku rong ñu ne la da rong waaye nag li ma dee advocate mooy pour sa du réeree si biir néeg nañ ko lijjantee si néeg bi du ñëwee ba si biti di ko fa lijjantee pour gis pour sa bi dina dina métti trop. ku dé ak sa baamel eh, Modou Lamine PRO Banjul City Council daf ma kool ne ma gars yi ñu ngi ñëw sa area pour ñëw collecte data ma ne ko Modou Lamine pour lan. mu ne ma waaw dafa am soobee buñ nekka UNDP ñoo ñu ko santa pour ñu collègue lii pour ñu jox leen ko te dafa war a nekk lu rapide ma ne ko Modou Lamine mi ne ma naam ma ne ko ndax doo laaj kansulo si njëkka ndax am nañ data because foog ma ne nit dina toog amee gox benn at xamuloo sa area ñana fa nekk ak ñi fa nekkut xamuloo sa ñaata ñaata household moo nekk sa area ma ne ko kon loolu dina doy waar de mu répétaat mu ne ma mun naa am am nañu tuxu te ñii dañ bëgg mu réalistique dañ bëgg loo xam ne at least du ñëwee dinañ ko fekk si ground bi ma ne ko waaye still foog naa ne loolu moo gën a correct laajal kansulo ku amut ñu duga mu ne ma waaye léegi comme ni mayor moo joxe directive dañ bëgg pour ñu def ko ma ne ko go ahead ma ne ko war na la ma ne ko ñun gox leen ñu santa gox leen ñu jox waaye moom di whole Banjul moom lañ ko dénka ma ne ko waaye nag foog naa ne e, dafa baax rek ñu ne nen ñuy déggoo waaye comme loolu mooy sa gis-gis ma ne ko mun ngaa mun ngeen a ñëw mu koolaat ma ne ma doo fa nekkul sax bugga nañ fa sa keena ma ne ko ba léegi du coow de mun naa lañ na keena dinaa ko laaj ndax dina ko mun ma laaj Faby Thiam ndax mun ngaa àndaat ñii dem bokka si sóobe bi moom di essence pour ma yóbbu woon ko sax pour mu dimbale because moom moom moo xam na suma gox soobee buñ njëkk a def 2013 maa mooma ko def eh, buñ def eh, recently foog naa ne 20 beginning of 20 ama ah, waaw foog naa ne 2019 bi just immediately after elections yi dañ defaat beneen soobee maa mooma ko def man moom Amadou Jon ma ne ko léegi foog naa ne léegi comme yaa ngee demaat dama bugg a doo demee ñii xaw ma exact lii ban façon ngi sóobee la gars di def waaye isil ma record si gannaaw boo leen ko defee ba pare dina baax si man pour ma lan la waaye sóobee bu gars yi def si man dafa rong torop dafa rong in a nga ñëw tiim benn kër mu óor la ne man suma nekk man la suma jabar suma dom, ak eh, naka la tuddaati xëy ki nga xamne sama ko amé ci kër gi nga sobé ma man fofu sobé suma jabar jena fofu sobé soobee suma raka jéem fofu sobé suma dom. nga ñew di jël nga gis ne Pa mamu ñew na jël malo jabaram ñew na jël maalo eh, naka la tuddaati domam ñew na jël eh, si benn am family holds yoo xam ne ba léegi a single rice mënut a dugg si ñoom ma ne ndaxam du nekkoon bàyyi woon nañ ñu ñu jël mbir mi suñ boppa because man xam naa ne gox gi lu ko gaay xam xam xam ay doomi Banjul lañ de te réew ma kenn mu dugal because liñ la dénk ak li nga moom dafa uti ñun dañu dénk place kenn ku nekk war naa mun a jóg pour dem seet li nga bëgg def ci gox gi nga def ko waye do amé consultation ak ñun waxtaan ak ñun du boba foog na né sa liggéey dina gëna yomb because ñun duñ la ayé dara dañu dénka rek lu ñu sàmmaloo lañ ñoo sama mun nañoo sama biyoon lu ñu sàmmaloo sax pour gis ne rek na ba waye lu bon lu né duñ gisé né mu ngee ñëw ñu mën sé tak suñu tanka dañ sé tak suñu tanka jaral nañu ñu dé because ñoo gis Banjul dara luy luy dim luy Banjul kon ñun foog na né duñ gisé li nga xamné tamit ñëw na te waroon nañ ñu ko teel a wax ñu waxtaan see ñun bu ñu defee soobee ba pare waroon nañ ñoo oyaat ne ñu ABCD lañ am si sa ñu ñu seetaat ko ñu waxtaan ak ñoom vérifié wax leen ne lii mooy réalistique lii moo li nga xam ne moo nekk si ground bi waaye nag tey du nekkee Pa Mamou ñëw na pour jël maalo mu jël maalo jabaram mu ngi am ticket jabaram ne dafaa dem jëli. Pa Mamour ne ko déedéet waruloo dem because ñun am nañ maalo ba pare mun naa xones moom waaye ndax jabaram dina xones ndax jabaram du wax ne ah kii daf ñu bugg a aye daf ñu bugg a suñ wërsag lii suñ wërsag la bàyyi ñu dem jëli ko doomam ne ah yow tamit suma papa papa suma doom suma turang fadi am naa half bag maalo half bag sukur at half five five litre diwlin lan laa ko wax dama jëli njël bi gën a yokku rek dëgg moo neex yàlla mun naa koo bañ mun naa koo bañ waaye am na ñoo xam ne duñ ko bañ man mii mun naa am nangu naa ko am na keneen ki nga xam ne daf koo bañ waaye yëpp si sóobe bi la rek sóobe bi moo identifié it ñi war a am ñi warut a am li mu waroon a waroon a adresse mooy family hall si wala euh, doo duggee si kër gi doo amee borom kër gi ba pare. nga ñaata nga laajte ñaata household ñoo nekk ci kër gi household si dëppal ko si rek ñanaay tooga si kër gi doo xamee ñuy tooga si kër gi mu óor la ne eh, paaduuru mu ngi fii dafa luwaas waaye bacilo la nga gis keneen bacilo la keneen bacilo la jëlal ñooñu nga boole leen def leen household ëllëgee duñ jéenee kenn ku nekk li nga séedoo doo ko amee da nga ne paaduuru mooy head household yi bacilo yi nekk fii léegi ñoom duñ collecté ñoom duñ ko séedoyee dinañ dem ñu leen dee toogal ñu jox leen ko ne leen ah yéen ñu dee toogal ñun tam am nañ lii jël leen lii du boobaa naxante du fa nekk waaye li ma gën a métti si sóobe bi mooy Pa Mamoud Xadi Ngom Matar Omar yaayi baayam ñooñu ñëpp nga gis leen si benn kayit day na waar trop te du nekkoon ñuñ xam dëgg la du war a ñu ñu ooñu ñu vérifier rek ne kon lii yëpp doo xew waaye nag saa yow fi taxawee ne lii warutoon a am billaahi liñ la bugg a bugg a bugg a dinañ la daf ñu añaane Pa dafa bon te Councilor Cissé bonut loolu moo tax may attest waaye jëloon naa sama décision ne du ma attestal kenn di simple reason mooy dama gëm ne council waroon nañ ñoo binda wala NDMA ñu binda ñu ne ñu lii mooy décision yi nguur gi waaye doo waxee ñu ne la ñun suñ boppa binduñu leeta pour ñu ñoo toog fi man bugguma suma gaay man maa leen war a dimbale ñii gox bi man maa leen war a dimbale duñ amut duñ ma gisee fu ñoo amee dama leen a bàyyi ñu dem amee fa duma leen xañ seen wërsëg mu nekkee tontu sa question nga baalal ma waaw. maanaam. maanaam. problème dafa mel ni nga xam ñoo génnoon di dem si biir di jël ñoo demoon sauvé ñoom ñi nga ñoo wala wax kenn lu bon dama ne li nga wax ko rek jarul ma datas foog naa ne man as kansuloo maa leen gën a xam woot bi pour mu leer tey du nekkee collecte nañ ba pare ma gis ne liñ collecte ñëw nañ ooma pour ñu vérifier xam nga du boobaa eh, dimbale dina am du ma gisee Pa Mahmoud gis Hadingom gis Matar gis Omar gis yaayi baayam les see Fatou Cissé naa leen ne ñii ñoo bokk benn néeg ñii waruñoo mun a am kii am voucher kii am voucher kii am voucher kii am voucher waaye léemaan bu jógee si biti ñëw di interview xëj na xam na passé waaye xamut Khady Ngom ndax xam na Khady Ngom mooy jabaram xamut ko so du du ñëwee xëj na interview na passé waxtaan na moom passé jox ko details si ñaata ñaata family members nga am passé start de compter one two three four five six seven eight nine am naa nine man suma boppa ak naay njop ñu ma njoboote nga binda nga demaat si Khady Ngom gan nga am mu starté si man waacaat ne la am naa six understand nga nga si eh, Omar wala Matar mu ne la am naa nangam understand du boobaa xëy na waaye du ñu ooyoon ñu leerlu wala ñu waxtaan ñu ni neen xëy na du boobaa li xew ni du xew waaye tamit wërsëgi waay waay yàlla la yàlla moo leen ko wërsagal maa ngi cee gërëm bu baax because eh, mun naa am dina téye yenn famille yi te xëj na tamit eh, na doon li nga xam ne rek na doon eh, lu lu lu lu lu yiw pour ñoom ma ñaanal leen ko because maalo bee sukkur bi am na feneen beneen leebul bu leen yóbbu waaw ki si am leneen ak leneen tamit sa wërsëg la ma ñaanal leen yàlla rek yàlla na li man nag xëj na si gàttal Um, again, Suma CSOE, simply the simple reason um, ñoom ñu Manyom, añ and Denkanela. Man dañ ma dénk ko waaye ñoom nguur gi wala council bi ñoo leen oo pour ñoo bugg a liggéey ak ñoom kon foog naa ne doomi Banjul lañ bugg nañoo liggéey eh, ñun duñ amee li ñoo wax rek always nañ ko wax meyo bi. waaw maire bi ne ñun liñ soxla si moom mooy ñu diisoo at least lii jëmale Banjul kanam eh, bu mu feel laaj ne eh, xëj na feel naa like ne dama bugg a def nangam dama ko def because of suma doole may na ma ko dégg la doole may na ko ko lool waaye collectif lii duñ waxtaanee ñu ni neen réeroo dina jéem na foofu noonu duñ waxtaanee ñu ni neen understanding dina am duñ waxtaanee ñu ni neen xëj na lim xalaatutoon mun naa am mu ngi ci kenn si ñun ku ko ko xalaatal mu gën a rafet damaa jël exemple waat ci ticket si bu mu ñëwee voucher si nga ñëw teg ko sa office li gën a gën li gën a rafet kool nga ñu won ne voucher yi mu fa waaye DM oyal ma kansula si ñëpp ñu ñëw ma ñëw waxtaan ak ñoom ci lifi nii ne lii lañ ma isil ñu waxtaan si du boobaa da ngaa gis ne eh, du rafetee ñun ñëpp la rafetal du ñaawee mu ñaawal ñu ñun ñëpp kenn du kenn du ko óoroon som ne mayor moo def nangam wala councilor bi moo def nangam toog naa fii di ates pour saynal la rek li gars dem bi wax si social media bi dégg naa ko Passy dafa am yenn voucher yu moo joxe Passy yëgut voucher gisut voucher waaye nag yàlla la man dama dee wax saa yu nekk saa ma nit tilimalale ñu bàyyi rek man du ma tilimal nit waaye kii tilimal na bàyyi bu baax waaw walaay tëkkuwuma kenn waaye nañ bàyyi wante xel adduna bi dafa gudd a tànk lool yàlla kenn ku nekk sa boppa nga fi nekkal yàlla ñu ñëpp la fi nekkal lii wax bu leer la ku defal yàlla buy gëstu ganaaw defalal yàlla rek te xam ne yàlla du feyam jotee dina la fay ba nga kontaan doo defee tamit loo xam ne tamit ëllëgee nga euh, jiite ay nit nga am looy farfarlaatoo di am li nga dimbale ak ñoo du dimbale billaay yàlla mu ngi laa gis yàlla ku mu lu mu tëg bëtam bëri na lool waaw waaye nag man moom foog naa ne gëm naa ne ñu ni neen la ñoo war a dimbalante Banjul fii dafa xat tey doo gisee ma ñëw Swansea xëy na di waxtaan bugg a waxtaanee fii dama gëm ne xale yi seen xalaat ak seen jubluwaay yëpp mooy luy jëmale Banjul kanam te dañ see dox seen amuñ benn meeting bu ñoo meeting duñ ma involve soo kon duñ amee lu mel nii foog naa ne fil naa laaj ne dama war a waxtaan ak ñoom ñëw ñu bokka waxtaani mbedda bi ñu ñëpp a si bokka waaw waxtaani mbedda bi la euh, mbedda bi lu seedoo xa bari